mais Birame Souleye dit que le secret de leur dépôt a été trahi ma bëggoon a xam au niveau de taxaw comment que vous avez fait en fait pour savoir tout ça parce que ñoom xëy na bu fekkoon ne seen pexe antu na mhm. dañ di mettre devant le fait accompli alors que yëf yi kii na moom pexem la xam te bu mu xam pexe jàmbur yi moom na mhm. toppatoo pexem na toppatoo trahison am na toppatoo waram na toppatoo ñàkk respect na toppatoo ñàkk tegginam na toppatoo irresponsabilité am na toppatoo comportement infantile am te bañ wax ak des politiciens parce que waye di weesuwul bëgg ndax ku la xel ñun on est dans la politique et on a pris le temps de cultiver des relations de respect et de courtoisie dans une nation dans ce pays là tout le monde se parle wax naa ko benn responsable Pastef ma ne ko gis nga yéen dafa am lu leen réere mbir mu ne ma la ma ne ko gis nga Sénégal dafa nekk dëkk bu jekk ci rëy waaye dëkk bu ndaw la ma ne ko doo jël Pastef ci kaw ba ci suuf mooy Moncap Monep ak seen toutes les structures mba magee Pastef mhm. doo fa wàññi fukki nit wala juróomi nit te gisoo sa mbokk wala gisoo koo bokkal école wala gisoo koo bokkal université wala gisoo koo bokkal koñ donc bu ngeen yaakaar ne. li ngeen voulez-vous en venir. bu ngeen liñ nasoon kenn ci ñoom. moo leen ko wax ñun ay magum politiciens lañ duñu ay xale. on sait comment ça se passe dans ce pays là dans ce pays là tout le monde se parle boo yaakaar ne mu nga def assemblée lu ñu xamul ci dans la naïveté pure. on sait qu'ils ont déposé les listes sans nous on a pris nos responsabilités. on a parce que dafa mm-hmm. dafa dafa am on double discours. bu gën a révolté gars si les gens on sont allés tey bu ñu neexoon xam nga ñun tey on est député non inscrit on a aucun poste. Mhm. mais qu'est-ce nous empêchait d'être député dans Yewwi Askan Wi sans poste. puisque nangu nañ ñàkk. vous auriez pu laisser ces postes à d'autres bokk ci Yewwi Askan Wi. mais bien sûr y compris à des gens de nous. bu ñu nangoo mhm. ñàkk lépp. mais loolu yëpp waxtaan moo koy indi aussi. waxtaanu leen mais parce que parce que du question waxtaan. mais que quand tu as affaire à quelqu'un comme Birame Souleye mu wax li mu wax. parce que bu dee mag. mais depuis un certain temps Birame Souleye comme quelqu'un de mauvais. non waxoo ko mais on sent benn benn ressenti. booy booy wax parce que parce que parce que il m'a beaucoup surpris et beaucoup déçu parce que j'avais beaucoup de pour lui Birame Souleye quand le quand le quand les gens du passé l'attaquaient dama dem ci bureau ci bureau parce que ça me faisait mal. bi ñu ko waxee engagé à renoncer à un mandat ne ko mm-hmm. Birame bul démissionner parce que y a pas plus compatible maire et le poste de parce que les politiques publiques yi ñuy évaluer ci territoire la ñu koy exécuté. ma ne te boo démissionné tu ne pourras pas être candidat aux prochaines élections locales lu ñu la mënti wax muñal mu wax ma lu bëri bi ñu nekkee bi mu nekkee sotrof wax waxam bu rëy boobu. mu am lu ñu expliqué si moom situation sociale am ma oo Baara Gaye ne ko Baara foog ñu jukk parce que instant bi Pastef ils ont des problèmes avec l'État gisuñu Abbas gisuñu Cheikh Thioro gisuñu kenn foog ñu jukk ñu wër Ndakaaru Ndiaye man maa toogoon assemblée team Farba ne ko ci es un bouffon daan la yóbbu mbëbës yow ak Macky Sall fan laa mujjee dem ba saalu Farba Ngom toog di ko ñaan njekk da nga da nga da nga da nga jël ci yow. ci yow pour mën def loolu pour ñaanal ko parce que situation sociale la moo tax. Mhm. ne biram am na lu mu def lu rëy lu ngeen war a nangu mooy que biram dafa tooñ baalu kon góor la kon julit la bëri na fii ñuy tooñ te kenn du baalu waa partem ñu ngi koy saaga ñu du tax muy baalu Farba Ngom oo Mansour Faye Antoine Diome Ismaël Madior Fall Omar Youm Lamine Thiam on a fait le tour partout pour plaider pour lui ba jour on a préparé la séance bi Ismaël Madior Fall ñëw di présenter réforme article 29 bi mhm. on parlé ak les députés mhm. tout le monde ñëpp wax ne ko dañu bëgg ngeen bàyyi ñu Birame Souleye te boobu fekk na yëf yi commencé amee jafe-jafe au sommet. entre yéen ak ak ak Yewwi déjà en foofu parce que ñoom bi ñu defee marche bi kër Sonko bi ñuy jàpp Sonko ñu jàpp député yi buntu kër tuñ ñu ñëw fekk leen garde à vue centrale ñu wax wax gars yi bañ leen génn ñu ñëw ñëw bloqué séance bi. gis nga suñ ko deful woon Samba Dang Cheikh Thioro Mbacké foofu ñëpp ñoom ñëpp si kaso bi la ñuy tabaskee wala garde à vue bi la ñuy tabaskee ñoo bloqué séance bi ne on ne continue pas tant que nos députés ne sont pas libérés tey ñëpp député taxaw ne mbaal leen biram mbaal leen biram ñu génn Ismaël Faye ne ah pour la première fois gis ngeen d'accord yéen ñëpp si benn affaire. Mm-hmm. je vais mais loolu moo une libération biram biram su lay war na ma fayee. ñëw fekk ma réunion man ma nekk bureau si suuf ñu woo ma ne ma kaay wuy réunion ma dem fekk fa euh, président assemblée fekk fa Omar Youm fekk fa Lamine fekk fa Bara Dolly fekk fa Abdou Mbow fekk fa Kester Birame Souleye ñëw ñu ne ko dañuy waxtaanee bu la neexee nga toog mu dem wàcc jàkkaarloog presse bi ne fekk naa Aba réunion ils sont en train de nous faire un enfant dans le dos moi je fais un enfant dans le dos à exactement. Mm -hmm. ce que Birame Souleye a fait. moo tax ces ñu bëgg jaxase nit ñi ak àdduna dañuy jël benn affaire togg ko ba mu jaxasee rek du la sa tudd rek sànni ko askan wi. manipulation la manipulation. xool yow génne yow ñu ñëw waxtaan ak yow ay sa ay moroomu góor sa ay moroomu góor ñëw waxtaan ak yow ne la nu ñuy def nga ni maa ngi xaar les leaders nga génn jàkkaarloo journaliste yi ne ba nga ñu ja ba nga ñu toroxalee ville de Dakar dañu garder suñu dignité mais yow lan la. c'est les leaders qui décident ou yow da ngay fayu xew ville de Dakar. mais avant avant lu ñëw ci ville de Dakar bi benn parenthèse rek euh, vous aussi ah parfois say sorties xëy na dafay heurter seen seen seen seen seen kii parce que on se rappelle tous euh, quand vous avez parlé euh, de kii nu mu tudd seen conseil bi juridique nu mu tudd sax nguur nguuram boobu. vous avez cité Birame Birame Souleye. Mhm. maanaam loolu aussi dafa indiwoon benn mbir boo xam ne xëy na moom it il aurait pu mal mal mal mal mal percevoir ça. su ma waxee dara man lan laa doon wax dama ne groupe parlementaire bi loyauté lañ fi wane engagement fàtte suñu bopp. Mhm. xeex fi ba xeex fi lu ñu farul xeex. jour bi ma défendee député pur yi sama benn xarit bu nekk bi bitim réew dafa moo woo ne ma abaa tey tu m'as déçu ma ne ko kii du abaa bi ma xam ma ne ko mais sa lan laa def. mu ne ma mhm. abaa yow yaay taxaw digg assemblée nationale Sénégal di défendre député bu dóor jigéen. député bu mhm. ba taxaw di ci wax yenn kàddu yi yo abaa yow war nga def loolu yow. ma ne ko mais on est solidaire mu ne même on est solidaire du Abba bi ma xam mhm. y a des choses qui sont qui sont indéfendables Abba une femme enceinte ñu dóor ko bi assemblée toi Abba Mbaye tu défends ça tu devrais avoir honte may wax mu raccroché ma au nez mhm. mais on a vécu ça quand les gens insultent les ministres mais on défend par principe bu député amee torof torof waxu prison comme Birame ou comme les autres leen défendre on a fait preuve de loyauté dans ce groupe là. mais dans dans l'affaire euh, Ngouda Mboup. Mm, xëy na xam nga jamono jooju ñoo dafa fekkoon c'était un peu tendu. entre les leaders voilà moo nañ leneen lu dul xëy rek Birame Souleye di ñu beddi dans ce groupe la tout le monde sauf lui parce que nag mu neex ko mu naqari ko dañ ko taxaw. Mhm. tout le moon peut nous exclure beddi ñu wala wala technicité ba mu saf Birame Souleye. ma koy ne bu fekkoon xalaat rek la yow yow tu agis comme un comme un responsable du Pastef man may agir comme un responsable de taxaw bi nga ma indilee contrat Mbour Ngom su ma neexoon bàyyi ko suñu neexoon bañ mais quand on un débat. am na personne n'était au courant non mais bien sûr mais justement c'est pour montrer à ces gens-là tout le monde fait mal. ah donc c'est fait à dessein. non c'est pas question c'est fait à dessein ou pas gis nga sëñ Cheikh moo ne bu heure yàq jotee ku ñu yàqul da nga ñàkk fayda quand vous prenez le pari de dire simplement yow yaa ngi ànd ak Abba parce que on vote une loi ñu dugal réforme constitutionnelle bi ngeen dugg ci salle bi man ma ñëw salle bi en tant que référent taxaw avant la veille mhm. on m'appelle on me dit Abba dañuy dem réunion palais yow Lamine Thiam Omar il faut qu'on parle de l'article 87 il faut qu'on aille voir le président pour voir les arguments est-ce qu'on peut le pas ma leen pourquoi je dois y aller ñu ne parce que bon Birame n'est pas là et toi tu leur fais taxaw tu as passé au dialogue man leen non je suis pas président de parlementaire. Mhm. ñu ne non il faut assumer vous leen et pourquoi je devais y aller je n'irai pas au bugguma sama benn collègue taxaw yeewi dégg ne Abba moo dem palais. surtout mhm. quand Birame est en prison. li may wax Lamine Thiam mu may dégg Omar yu mu may dégg j'ai refusé d'aller au parce que Birame était en prison ñu ñëw le lendemain bi Guy Marius dugal une motion de rejet ne comme l'article 87 il faut reporter nos travaux ma ne aux gens de taxawu voter leen abstention parce que bu leen jox nit ñi impression que ñun on est en train de rejeter Yewwi mhm. bi loolu amee salle bi commencé bouger après Omar Youm ne ma Abba attention kaay ma wax yow nag suma frère nga je te respecte mais attention actuellement le groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ñoom ñëpp ñu ngi ñëw di casse parce que il faut savoir que Abba actuellement à Benno y a des tendances ñii ils ne prend pas le risque. Mhm. que ëllëg ñoom bu loi Khalifa Sall bi ñëw ñoom ñu voté abstention je ne pourrai pas les retenir. Mhm. moo tax ma ni ko je vais prendre mes responsabilités monter sur la tribune et dire que nous allons défendre le principe dialogue moo tax ma taxaw ne tous les textes qui sont issus du dialogue. Mhm. on va les voter mais lu ñu ko def mais j'ai reçu un bashing hors norme ñu dem sax woote ndar ne abaa neen lépp lu ñëw lu yàqal Sonko da koy voté ce qui était archi faux le jour du vote ñoom ils n'ont pas voté le texte ba pare génn def recours qui a fait le recours c'est le conseil juridique du du du du du, du groupe. Ouais. qui a fait un recours contre une partie du groupe parce que ce texte concerne Khalifa Sall biñ koy def yëgaluñ ñu waxuñu ak ñun. ñu def ñu def recours ba pare ñoom ñu yaakaar ni que avec les délais on peut plus revenir ñu reconvoquer l'Assemblée nationale. xam nga bi ñuy convoquer assemblée bi pour le vote de l'article 57 et tout c'est l'Assemblée qui a convoqué la c'est tous les députés de Benno tous les députés de de de, de Wallu et tous les députés Taxaw j'ai pris responsabilités dama signé convocation bi. xam nga la su ma neexoon xam nga su ma woon am na ñu ma won ne ma Abba xam la ngay def da ngay bàyyi ba jour vote loi bi nga yëg ne vote sans débat. Benno 82 députés Wallu 27 députés. Mhm. Taxaw 14 députés on était largement majoritaire. Ouais, c'est plus la majorité. j'ai dit aux gens il en est hors question laissez-les dire ce qu'ils ont ñu ñëw wax seen wax ba mu jeex. ba heure votulaa bi ñu ne waat tirit daw te xam si gën a métti mooy koo siwte nga ne mais yi tax voté wu leen ñu ne abba Khalifa sama grand la quoi grand bu baax la quoi bu moom mu may gis may voté contre lui quoi génn defaat encore un recours mhm. un recours avec les moyens du groupe par le conseil du groupe ay ngeen bëgg ngeen duñu wax mais un moment il faut comprendre